Yes, man, yes. wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi nga xamante ni bii ñoo ñuy seetaan noo eh, fii ci kër Soxna May Munatu Mbàkke bintu Cheikhuna Ahmadul Xadim ñu gën ko xin miin ci Soxna May Kubra mm, Soxna May Kubra mi nga xamante ne bii mooy doomi Cheikhuna Ahmadul Xadim ji feeñ jamono ci atum 1907 eh, ca ca yeen Jolof soxna may di doomi soxna Aminata Bousso soxna Aminata Bousso mi nga xamante ne bii doomi Serigne Bousso bi la mu bokk ak Serigne Abdoul Khadir ak soxna Khady wenn waajur soxna may moom nga xamante ne bii nag ku ne xam ne taxawaayam ci yoonu murit bokk ci jigéen ñi njëkk a man alquran ginnaaw bu Serigne Touba jógee ci géej gi bokk yi itam ci ñi njëkk a génn ci daara yi soxna Faatija Mbakke bin soxna Ahmadul Khadim ci daara yi tarbiya xamne bi serigne bi joge jollof rek ñëw ndiarim ci atum 1902 ci la taxawal daara terbiye ju mag joju nga xamne mo amone ci ndiarim te soxna Faati nekkon jeewriñ je ci la bi ginaaw bu soxna may mokale alquranul karim be bind kamilam bu siw bobu te ko ci loxol way juróom wa ci la ko bolé ak soxna Fatija nga xamne ci dunduk Serigne Touba nekkuk Serigne Touba ci kaw suuf la soxna Maymuna bind ay kamil jébbal ko Serigne Touba togal ko fi ay reer yu bari jox ko ko nekkon itam waykat koo xamante ni bii ku bari woon xam-xam la euh, te mënoon a way ci euh, arab ak nag ci wolof ndax euh, way na ci arab lu bari waaye way na itam ci wolof lu bari bokk na sax ci ay xarbaaxam ak ay kimaanam mbooleem loo xam ne jigéen daanaka ittewoo ci wàllu liggéey ci këram daf ko ko daan wayal ndax daana faral di wax ne way moo gën a neex a mokkal doon na itam nit ku sell koo xam ne jàmbaar la joo xamante ni loolu moo waral ñuy ñuy ñuy fàttali ko bisam bii ci ci ci nag ci njiitul Serigne Moustapha moom soxna may moom soxna may moom Cheikhuna Ahmadul Khadim Serigne Moustapha di doomi Serigne Modou Habib nga xamante ne bii kenn nattabli wut taxawaay bu ràññi ko bi nga xam ne soxna may amoon na ko foofu ci Daarul Muxti bi ko fi suñu borom subhanahu wa taala yóbboo waaye itam ginnaaw bu mu jógee Daarul Muxti itam ku ne xam ne ne jaar na kër sëñ Mor Jaara ci loxol sëñ Mor soxna mi nga xam ne mooy taawub sëñ Mor Jaara ba mu fi jógee nag la ñëw Daaru Salaam Eh, fa la amee ay caatam di sëriñ Hamdi Maymuna ak sëriñ Abo Rakam ak soxna Toora ak soxna Yakale Amen. Euh, nangu liggéeyam moom soxna ma itam bokk na ci li ko suñu borom defal ndax kone xam ne ne euh, turu yàlla wi suñu borom di nangoo ak ñaan bokk na ci jaayibu te jaayibu boo ko xadatee juróom-ñaar la lay jox te suñu borom subhanahu wa taala juróom-ñaari bant rek la ko jox mel na ne kon liggéeyam bépp suñu borom subhanahu wa nangu na ko euh, mu mel ne kon am na ngërëm daaru moxti ni ko maam Thierno amee woon ci Seexuna Ahmadul Xadim am na ngërëm ci kër sëñ Mor Diarra ni ko sëñ Mor Soxna amee woon ca Thièyeen Jolof ba muy tarbiye wu foofa waaye am na ngërëm ci Daaru Salaam ci loxol Serigne Modou Mamoun ni ma ko amee woon ci loxol Serigne Touba Xaadimu Rasuul kon mel na ne boole na ngërëm yu bëree bëri ginnaaw bu mu amee ngërëmul way juróom Touba am ngërëmul Soxna Faati ja Cheikhna Ahmadul Xadim bokkoon na itam ci ñi nga xamante ne bii Serigne Touba fonkoon na ko lool lool ba bokk na ci sax gan ñu Serigne Touba masa am te fonk ko lool daana ko woon liggéeyloo suñu suñu ko waxee mu ne ndaw lu man alquranul karim amee xam-xam ne moom jube ne moom ba noppi mane liggéeyu jigéen ne moom eh, bu fekkonte ne bii danaa bég ci lenn lu dul yàlla ak yonent bi eh, danaa bég moom kon waaye kenn xam ne ne sëñ Tuubaa dara dawut seral xolam lu weesu yàlla akub yonenteem subhaanahu wa taala bis bi ñu koy fàttaliku nag gis nga taxawaay boo am solo loolu moo ko jural ay turandoo yu bari yoo xamante ne bii Eh, bàyyi ko nañ ci kër yi Serigne Touba ndax bu ñu la tuddee rek kër Cheikh Mahamadul Moustapha gi nga xam ne mooy taawub Serigne Touba da nga fa fekk ay turandoom bu ñu demee ci kër Cheikh Mahamadul Fadal sun borom subhanahu wa taala joxoon na ko fa ay turandoo eh, donte dem nañu àjjana boo demee kër Serigne Abdoul Khadir boo demee kër Serigne Abdoulahi mi nga xam ne ab seexama ñoo seexandoo ci ci Thiène Jolof te Serigne Touba waxoon na ne ñi ma yàlla joxe joxe Thiène ñoo àndaale woon ngërëmul yàlla ñi nekkoon ca Thiène di fa tarbiyewu loolu bokk na ci soxna Maymuna mii eh, gis nga woy juróomu sell wa di soxna Aminta Bousso bi mu nekkee ci yéen Jolof te di fa liggéey bu rëy boobu ko sëñ Tuubaa doon liggéey la nga xam ne ko joxoon fukki kilo yi cere eh, pepp di ko def loo cere wax nañ ne ba mu ko defaree loxo yu futt ci ci soq ba ba nee si sëñ Tuubaa daf ko jox waaye da koy liggéey ci guddi gi yàlla si def ngëneel di mel na luy taw mu fob kanamam dëpp ko ci gënn gi ngir bañ mu tawte muur ci ay yéreem far fa nelaw ndax coona bi Serigne tubaa génnee fekko ko foofa ndox mi dal ci kawam def na ko kii kan la mu ne ko man la Aminta Bousso mu ne ko liy jaay ci kër gi yaa ngi koy waxaale kon loolu tegtale ne moom soxna Aminta jàmbaar la woon joo xam ne li mu am ci Serigne Touba daf ko jënd lool nag soxna may mu ne mii ñuy fàttali ko ci la bokk moo tax nga gis turandoo yi fu ne ñu bàyyi fa eh, ci njiitul Serigne soxna may mu ne mom serigne Abdoulahi ginaaw bu soxna may mom serigne mudou mustapha nekkee ci keur ga ànd ak yenen may mu ne yi may soxna may Moussa Abdou Khadir soxna may mom serigne soxna may mom serigne mordoj soxna may mom serigne abdou wadot ak turandooy soxna may yëpp moo nantara kisana di wabai amana hubahu minam badai radarisi umayli hadi bin azar minam makarihi bin man azar imam aku wahi batu lemiri ikan tulis kuhum wala bihi miri antara him kumatur rahman amu minum mahi minum manam ikibaku binati wabai wa syukil fahbai kubukai ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana and the Najib Samai to one Kamada, while he questioned peace and Kuha, Yaha to the Sandewa Hibita, Sedivita Tia Pandumera, and the Najib Samai to Wadi Amara, while he questioned Kukuli Mustahim, Lamadi Arasirat Mustahim, Wasilia upon the Humahamidu, Allah Masan Smahu Hamidu, while he questioned Kuhuduri. إياك في الإسراك والتدين وزهما أن يثبت النظام بعد رضا مع آياتك النظام زد وزد من يا حبيب عدل جيش معكم مهمور وآله وشعبي رباهم يا واهب أم معاتباهم وزل يا فردا له توهيب على الذي سمعه أهيب وآله مع شاب كريم يا من به قير حق خاديم وزل مرءا به يا كريم وهو إلي كل ما أظلم زل وزل من يا رشيد على الذي به بدا ترسيب وهو الذي سمعته وهيلا يا واحدا خطبه توهيلا وآله وصحبه سعدادهم يا من هو عبادة هادادهم سجد وزكي واهب سماهم اللهم صل صنعهماهم وآله وصحبه كمادهم أصالح كرمهمادهم وزلي وسلم يا شايب يا من إلى إلهه أبالغ اللهم حسن صنعهما شهر والله وسلم أشياء باسره سجد الآخر وقال ما حسن لك وشكر يا وآله وصحبه أجمعين يا من به أردني أجمعين شرفاقي وعياشنا وحسنات وزدتنا وآله وصحبه أجمعين يا من سجد غيركما وزني وزني على على ما سنصنعه تاهر وآله وصحبه رجالي يا أرحم كل أهل الأوجاري أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من سبب يغفر لنا شيء ما تون إليه من سرائر وبالقلوب سأتوب بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهي تبت له من جملة سكائه تبت له من جملة سكائه الكبائر ومن أمائه أغفر Alternative, Vedan doomi sëñ yi sëti sëñ Tuubaa yëpp gis nga ñoom ñëpp fi teew kenn defu fi Cheikh Mamadou Bachir gis ngeen ko fi noonu gis ngeen fi itam sëriñ Moustapha mu sëriñ Abdoul Khadir gis ngeen fi sëriñ Cheikh mu Daaru gis ngeen fi kilifa yoonu murid ñëpp ngeen fi gis eh, ni ñu fa taxawoo itam gis ngeen itam jigéen ñi ñoom ñëpp àndandoo ànd ci liggéey bi eh, ànd ko ak daayira sët yi daayira sët yi nga xam ne sëñ Mbàkke moom sëñ Moustapha May mi ngi ci euh, sëñ Mor Soxna moom sëriñ Cheikh May mi ngi ci sëriñ Cheikh Abdou moom sëriñ Amdi mi ngi ci ànd ak njabootu sëriñ Abo gi ñoo itam ak doomi soxna Toora yi ànd itam ak doomi soxna Mamante yi ñoom ñëpp ñu àndandoo ne ci liggéey bi gis nga itam jigéen ñi seen taxawaay njabootu sëñ Abdou Lahad gi gis ngeen leen gis ngeen njabootu ko sëriñ son yi buggi gis ngeen seen taxawaay gis ngeen njabootu sëñ Abdou Khadir gi seen taxawaay gis itam daayira yi euh, ni ñu taxawee gis ngeen bernde yi fu nekk ña nga fa bàyyi ko te ku ne xam ne ne soxna may ku ko xam xam ko ci jàng alquran ak jaamu yàlla ak lëggéeyal sëñ Tuubaa ak bernde gis ngeen moo tax bernde yi fu ne gis nga ko fa ñu àndandoo gis ngeen jigéen ñi ni ñu takkoo ndax magal gi màggalug jigéen la jigéen la ñuy fàttaliku moo tax gis nga woo li sëñ Fall waxoon ne jigéen ñi ñoom a njëkk a wuy si moo tax danaa leen ñaanal ci jumaa ji lépp lu ñu woote ci yoonu murid da ngay gis ne daayira jigéen yi ñoo ci man gis nga taxawaay bi nga xam ne jigéen ñi am nañ ko ci màggal gi noonu la ñu wee gis nga euh, noonu la ñu yendoo fii ba agsi ci li nga xamante ne bii moo di waxtaan wi euh, ni ñu séparé góor ñi ak jigéen ñi ndax seetlu soxna si يا